duñu dem asalaamaaleykum wa barakaatu mbokk yi teew ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di jiital ci nuyoo bi nag niñ ko waxee Cheikh Mamadul Muntaxa mu fi toog jataayub Cheikhul Xadim di ñaan suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér ak mbooleem njabootuk Serigne Touba gi yëpp di leen nuyu ci turu Serigne Afia Bousso mi nga xam ne mooy njiitul daayira Muxaddamatul Xidma ak kilifa yi nga xam ne ñoo fi teew su ma ci tuddee sëñ Abdou Lahad Boussa Mame Asta mi jiite commission sociale bi feggoog sëñ Abdou Lahad Boussa Thierno mi jiite commission culturelle bi te topp ci moom ak sëñ Abdou Khadir Niang mi nga xamante ni moom itam ci commission sociale bi ak relation extérieure la bokk. di jël nuyoo boobu nag di ko teg ci loxol sëriñ Mouhamed Mbacke mi nga xam ne mooy doomi sëriñ Cheikh Alioune te jiite mbooloo mi fi ñëw tey nii teewal leen fi ni ko sëñ Ahma Dieng waxe euh, muy jëf joo xamante ni duñ ne guleet suñ àll yi di ko ànd ak daayira Muxaddamatul Xidma ni mu ko waxee leeraloon nañu ko nee na day yéen ay soppe ngeen yoo xam ne da ngeen a booloo te sëriñ bi boole leen ndax booleeg sëriñ bi mooy jumtukaay bi leen boole jumtukaay buy liggéeyal sëñ Tuubaa ci ngeen xamante ba booloo jël seeni addiyee jox ko addiyee jooju ngeen ko jox muy suukar si ngeen koy jox ci koor gi te mu am yayoo lool ci jëfandikoo ko yeyoon na ko ci fànn yëpp ci wetu sëriñ Touba ci wetu li muy liggéey lépp yeyoon na ko waaye nag mu xool fi mu ëpp yaakaar ci ne dana dana gën a gënal sëriñ bi mu indi ko fi ci jumaa ji loolu moom tawféex la ci ñi ko doon joxe jàpp naa ne ñoo war nañ cee gën a sant sëñ bi bu baax a baax a baax moom nag daa doon jëmm joo xam ne mook daayira Muxaddamatul Xidma mën naa ne liggéey yi ñuy def ci jumaa ji yëpp moom ñun ñoo koy ànd euh, dafa gëm ne li ñuy def moom ci ñi ko waroon a def la bokk kon ñi fi nekk dañ ko fee nekkaaleel kon war na lu ma ñoom itam lu ñu nekk mu yëg ne ña nga ca mu di ci tàbbal loxoom loolu mi ngi ko tàmbalee ci jumtukaay bii mu yor muy rajo bi jant bi ceeñeer ba ci leer gi saa yu jumaa ji soxlaa seeni émission yëpp la ñuy dagg jox ko jumaa ji te ñun ñëpp xam nañ temps d'antenne ni mu seere ci rajo waaye mbooleem waxtaan yi jàll ci koor gi mbooleem ñi koy jariñoo ñi ëpp ci ñi koy jariñoo ci jant bi lañ koy déggee ak fu ñu mën a nekk ci réew mi nag fi lañ koy dégloo Touba gii bari na ñoo xamante ni fañ toog lañ toog te dara du leen ump ci waxtaan yi ñuy def ci koor gi te bañ ca bañ ko tàmbalee ba tey nag. dafa dafa daan yebal ay ndaw spécial yoo xam ne saa yu takku saak jotee ñëw nañ ba ba ñuy dog ba bañ yeewee lañu ñu dem léegi la jumtukaayu xarale yi gën a gën a yokk ba tax sax léegi mu ñu toog fañ toog ñu leen di envoyé ay lien ñu koy direct waaye dañ daan ñëw ak seen jumtukaay ñëw toog loolu nag. di loo xam ne sëñ tubaar rek a tax mu di ko def sëñ Touba mi tax mu di ko def nag gis gis na ko te dina ko ci fayal boppam waaw muy jëmm joo xam ne ku ko xam-xam ko ci Pastef ak liggéey ak bëgg lu baax loolu moom mooy aw doxinam ñëpp ci loolu lañ ko xam sëñ Cheikh yi mooy koo xam ne doo ko gis ci leneen lu dul liggéey li dul loo xamante ni liggéeyal yàlla la liggéey sëñ Touba doo ko gis ci leneen leneen amu ci soxla loolu nag ku ni mel liggéey bu mel nii boo àndeek moom mu jël sa addiye ja nga koy jox ñoo defal la ko ci liggéey bu mel nii sa xel war naa dal bu baax a baax waaye yéen ñi koy def itam warees ameel na leen ak cant bu baax a baax ak ngërëm ci seen taxawaay yal na suñu boroom yokk seen wërsëg yal na suñu boroom dolli seen wér te ngeen yàgg koo def ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko yóbbante sëñ Mouhamad di la yóbbante ci sëriñ bi nuyoo waaw ak cant yoo xam ne mi ngi jóge ci sëriñ Afia ak mboolem daayira Muxaddamatul Xidma ci xamal xamal ko ne ko ñi ngi feddali kóllëre gi itam di rafetlu taxawaay yi nga xam ne mi ngi koy def te du dañ di ko def waaw te yàlla rek tax mu di ko def bëggu ci ku ko sant bëggu ci ku ko gërëm defu ko ngir sal da koy def rek ngir jëmmi euh, sëriñ Touba sëriñ Touba mi tax mu di ko def nag gisal gis na ko te dina ko taxawul boppam incha allah. yéen di leen fasaale ci liggéey bi mboolem jëwriñ ñi nga fi lim. xëy na lim ko sax day xaw day gudd waaye mbooleem jëwriñ yi nga xamante ni ñoo séq liggéey bi moo xam ci jant bi ci ceeñeer ba ci leer gi ñoom ñëpp nañ xam ne seen seen jëf agsi na agsi na fi mu war a agsi agsi na ci Serigne Touba waaw ñu ngi leen di jotal suñu kàddu cant bu baax a baax Serigne Bara yow itam ñu ngi lay sant bu baax a baax ci sa taxawaay ci wetu Serigne Cheikh Aliou moom itam ci jàppale gi koy jàppale waaw moom daal cant mënta si cant waaye ci turu daayira Muxaddamatul Xidma ci turu Sëriñ Afiya mi ko jiite ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di ñaan suñu borom yàgg gën leen koo man loo yokk seen wërsëg wëral wëral seen i cër ba saa yu ngeen ñëwee fekk nu fi man koo def ci sëriñ bi nangu ko jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.